parce que man am na benn instant man seetaan mooy bi muy tag bi muy dóor si euh, love live bi xam nga foofu tam dafa neexoon mm. trop ambiance bi neexoon na ambiance neexoon na de xam nga Ramadane moom mm. macha allah macha allah ñoom bokkuñ si man dama koy wax damay wax ne ñooñu waaw ñoom damay wax ne ñoom li ñuy tëggee moom dafa doy waar te même jour boobu maa ngi seetaan si du Diop tamit mu muy ta muy def lu garaaw seen TV Youssou maa jigéen Ndour ndeysaan mm-hmm. ah nekk TFM nag wàcce ko ba zéro waaye mais man gis naa Omoro. dafa suñu juumu waaw ah mais sa normal da ngaa mën a sëy da ngaa mën a sëy moo tax yow nga ne <laughs> xooloo si yow xooloo Youssouma Jigéen Ndour. nga ne sa jëkkër fu mu nekk rek foofu foofu nga nekk. léegi mais man du question dara nag mais dafa mel ne gis naa ko muy joxe mu jox Wally Seck euh, xaalis gis yow gis nga loolu mu koy battre. voilà waaw mais fecc na ambiance. mais non garaawul ah waali sama waali la ñëpp xam nañu man dama bëgg a waali Ramdan sama gars yi ñëpp ñu fa nekk ñëpp samay frère lañ. très bien ayo c'est ayo xam nañu man dama mës a nekk faramaareen. waaw donc mosuma am problème boobu. waaw waaw léegi. Hmm. ayo est-ce que am nga leneen loo loo loo mën a teg loo mën a dolli. pareguñu mais dama bëgg laaj la rek ci est-ce que sa diggante ak famille Umaro par exemple. Hmm. parce que man dégg naa benn rumeur ñu ne.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 saa yoo yeewoo vocal ko xool ko xam nga comme sa yaay la sa goro la seet ko bu la tontoo baax na bu la tontul baax na. kon ngi doon def loolu. yaa ngi doon def loolu. ko doon def parce que mère bi. Ah. ku bëgg a yaay ku bëgg mhm. jàpp ko rek te tax sama mag bu ma bokkal ak baay aussi ma wax ko ko kooku ma man de sii laa xam ndax man sama mag sii na ñaata at nga ko teg. Mhm. ba léegi fa la toog musul fay musul bàyyi jëkkër ji. mu ne ma man de boo xoolee si man di nga sëy ndax man damay seeyal goro damay seeyal jëkkër damay seeyal njëkke sa goro lu mu la mën a def bul ko topp boo yeewoo message ko seet ko defal comme dara xewul ah, kon li ñuy doon wax kon li ñuy doon wax dëgg la dafa am ñagas ñagas am na ah. ñagas ñagas parce que maire bi dafa dem ba ci biir mënatu koo nëbb ah. balaa Noël xuma balaa balaa balaa trente et la ma la message man astafurlah trente et un laa ko vocal si guddi mhm.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 Euh, mu wax way yoo xam ne daal tegginewul si diggante mag ak xale waxatuma laa yaay ak doom. Ah dégg naa ngay ñaan baat dafa mel ni yow parewuloo pour sëy doo sëy kat patati patata te fekk moom gëstuwul lu tax man may ñaan baat. ko woo di ko kalaame Omar benn yoon laa ko woo jooy kalaame ko Omar ne ko dama bëgg mu ne ma lay xaw Omar day doxaan ma ne ko Omar musul doxaan mais Omar dafa bëgg ci dama na xaral. Ah. mu ne ma dinaa la woo suba dinaa la dinaa woo papay Omar. waaw.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 ne mu ne ma balde ban naa jël ko sa yaay la ngeen waxtaan. waaw ma ne ko ok garaaw ma coupé Omar tombé yaay ji vocal ma ne dama Omar ma jël ko ma woo ko et maire bi la mu wax. waaw mais ba ma wooyee wax yow wax ci doom ji. Mm-hmm. rek war na ma mën a génne man ci sëyi Omar. ah déjà war na ma ne Omar yorul la ma amee.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 ñooñu buñ ko mayul ko mënu ma jox kon Omar bu nu la yore man yow laay sauver mais man sauver boobu may sauver yow sa doom nga a sauver wala doomu jàmbur nga a sauver. ah mais attention mel moom dafay wax pour génne ma bi. ah loolu loolu ma yor. Ah, mais nag ayo ayo nga yaay ju mu teg ci. déglul ba pare teg ci. waaw Omar lam la may mayu ma ko. dëgg la. Omar may na la téere mayu ko yaayam. waaw Omar may na la oto mayu ko yaayam oto Omar may na trois mille millions ak mayu ko yaayam Omar lu defal keneen ci biti te mayu ko yaayam yàq na ko. man ne ko hmm. mais Omar may na la téere mu ne ma ne téere bi duma ci xuus mais moom xam na man xam naa man ne ko c'est kon baax na. Ah, ah, ma ne ko ah. Omar. waaw na la appartement mu koy fay def ko ne ma loolu rek tayul. waaw chaque mois. mu ne loolu doyul. dëgg la Omar lan ma jox man dafa ko war a jox. maire bi moo ko mu ne ko ci droit maire bi moo ko wax. Ah. mu ne ko am nga ci droit Omar sa doom la. dëgg la am nga ci droit. Hmm. mu wax wax wax ba daanal parce que dafa toog un mois waxul ak doom ji man mu jël ma taf ma. mais kër ba ma woowee wax ca laa xam ne kii am na lu ko métti kon ci la ma Omar defal ne ma ay mbokki Omar ñëpp a mer ndax Omar lim ma defal ma ne ko ko yéen bëggoo leen Euh, loolu yëpp jot naa am ci sëy bi ci sëy bi. waaw te loolu moom moo ma ko waxal boppam. yaa ngi ma ko parce que yow sa doom bu jógee ba takk jabar teral ko yow da nga ci war a kontaan. Ah, te ah, yow. Ah, nga mel may ma dama lay laaj rek nekkuma fi sax pour hmm. pour joxe jugement de valeur xam nga pour judgement mais wax dëgg yow da nga may nduru ku sëykat nga may ndurul daal sëykat nga may nduru. man parce que parce que jigéen yu bëri jigéen yu bari bu ñu sëyee du ñu sax jéem a di wax ak seen i goro mais yow yaa ngi ne dangay dangay nuyoonteeg moom. après ma teeyal mais doo génn ci sëy bi ma jooy ne ko sama yaay bu doon dund ni ko liggante na ko comme sama papa moom dafa bëgg a doom ñuy wax sama waxu yaay. waaw moom rek lañ dese mu ne lu tax bàyyi leen soo leen waxee wax seen waxu yaay dafa am li muy def ci man. waaw ma ne ko yow sama papa nga sama xarit nga ndax doom bu jigéen papa papaam. waaw mais jàppale ma ndax sonn naa man bëgg naa sëy mais Omar jàppale wu ma. ngir yàlla génne leen ma si sëy bi. waaw lii muy doyee Omar pour mu Omar pour waxtaan moom mais Omar jëlul. waaw nga ne barki démb mais bëggatuma te duma ci toog. barki démb rek am na lu mu defaat lu Omaro defaat lan lan la wala jot nga ci wax tuuti. Omar si def la dëkk. lan la mujj def lan la mujj def loo xam ne moo la gën a moo la metti waaw gars yi doxi bi rek ba fajar bi. Ah, mooy doxi ba fajar. doxi ba fajar mooy doxi bi rek fajar bi fay télé ci boole buy doxi day bi. day fay téléphone waaw waaw xam nga bu njëkk ba du ko fay man dama daan mën a xam fu mu nekk waaw ba heure bu may dugg ci kër bi mais léegi daf ci boole fay téléphone bi ah, ba heure bu may dugg ci kër bi bu ñëwee ne ma batterie bi moo faible d'accord kon yow daal loolu loolu moo la naqari gars yi Mister Shake la ak Ayo Balde lii kii la rek lancement la dinañ leen tegal audio yi yëpp yi ngeen war a déglu yëpp xam nga ngeen déglu euh, Ayo Balde ngeen ngeen xoolal seen bopp man man dam euh, dañu woo pour xam li xew waaye ayoo dégg ngeen li mu wax dafa leer nañ léegi ayoo lan ngay tàggoo ak euh, suñu mbokk auditeurs yi. Euh, li may yi. waaw maa ngi maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp ndax bi may seeyee Omar am nañu d'accord am nañu d'accordul. waaw mais dañ ñi d'accordul comprendre naa leen parce dañ ne woon Omar mënul sëy mënul yor jabar. donc man ci man dama jàpp ne lépp lu waxoon rek man gis naa ko ci diir bu gàtt. Hmm. nañ ma dégloo xel te buñ ma dégloo ak xol. dëgg la. man Sénégal gambien laa man sama maam bu jigéen ku jur sama papa sénégalaise la lu kenn xamul lu ñu ba kenn xamul ñu bari xamuñ ko. dëgg la. man sama bu jigéen Fatou Gadiaga la tudd Kaolack la dëkk. dëgg la man sama pàpp ay mbokkam ñëpp ñu ngi Sénégal ñu ngi Kaolack. waaw kon man Sénégal gambien laa. Hmm. seen doom laa ñoom Sénégal. waaw dama bokk Gambie dama bokk Sénégal. léegi léegi man ma nekkee Sénégambien noonu laa nekkee Sénégambien léegi dama leen di bàyyi ñoom ñu déglu vocal yi. waaw kay ñu jugé seen bopp. mais damaa bëgg ñu xam ne. Mhm. sëykat laa. sama yaay dafa sëy ba dee. Mhm. te dama naroon a dama façon yéene sëyal Omar ba dee. waaw ndax jëkkër la mu am mu ñàkk xooluma ko. waaw alalu àdduna yëkkatiwu ma ndax man dama juddu fekk judduma ci ndóol. Mhm. mais Omar moo ma jàppalewul jël naa sama décision mooy bëggatuma ne ma Omar fase ngir yàlla ak yonent bi ma jóg doxi samay soxla. ok loolu dafa leer. ndax baat rek moo fi nekk. ndax yoruma. yoru la lii laay ñaan. waaw benn bu ma bëggoon a dool dooli mooy dama ko ne Omar lépp loo ma may pare naa pour delloo la ko. ah bon. lépp si nee ma duma ci laal dara. am na problème bu ñu amoon sama ba ma sama papa jooy sama papa daf ko woo appel vidéo tegal ko 6 millions ne ko gis ngay xaalis bi wan ko xaalis ne ko 6 millions mu ngi nii teg. waaw sama doom bu ne bëggatul nga def li nga defaat li nga defoon. waaw euh, sa 3 millions mun naa la ko jox léegi ma delloo la ko. ah bon lépp si moom xam na loolu. loolu mere woon na ci sama papa ne sama papa warul wax loolu. Uh-huh. bi ma kon ñaanee baat nee naa ko Omar. ngir yàlla fase ma jëlal lépp loo ma mayoon parce que man dafa fekk ma tedd ba pare. dafa leer ma may dama ko lekkaat ko ba pare lan ma may sax man jotuma ci dara ndax oto bi baaxul kër gi sama tourné ci. Mhm. boo bëggee sa 3 millions sa pareeru or ma delloo la ko kon man pare naa pour delloo Omar lépp li nga xam ne daf ma ko may mais moom moo bañ ne du ko laal. moom moo bañ ne du ko laal. moom moo bañ ne du la may baax dara lu ma jox. Ah, ok dafa leer na leer na. lii nag laa bëggoon a leeral jërëjëf. jërëjëf merci. te da ko def nii rek pour introduction maanaam introduction yeneen audio yi waaw yeneen audio yi di ñëw yeneen audio yi ñëw léegi nii sax di nga gën a faram lépp li kii la rek la introduction waaw waaw merci ayo